salaamaaleykum mbokk yi ñuy amaat euh, mbégte dajeeg yéen ci seen émission bi di ganu Equivox ci Equivox TV tey nag ñu dalal koo xamante ni xàmme nañ ko ci réew mi ci wàllu politique lu ko dalee ci wàllum uh, PDS ba tey wala sax lu ko jiitu rawatina fan yi taxawaay bu mu am ci coow li nga xam ni fan yi moom moo xew ci réew mi dox ci diggante ku ñuy wax Ousmane Sonko ak Adji Sarr am nag beneen dimension boo xamante ni jël na ko ci wàllu politique ba taxawaayam ci assemblée nationale bi kenn dootu ko lam-laame kooku moo di Moustapha Guirassy tey moom la ñuy dalal fii ci ganu Equivox. ñu ngi lay nuyu honorable député. waaw di la nuyu Mohamed di euh, kontaan lool seen plateau Equivox euh, di leen euh, félicité aussi liggéey ju am solo joo xam ne yéen a koy def pour tas xibaar. Mm-hmm. pour yar nit ñi. Mm-hmm. parce que aussi dafa am benn. Mm-hmm. mission éducation bu am solo bi ngeen am. mais euh, rawatina nag. Mhm. période bi ñu nekk nii. Mhm. Euh, surtout moment bi ñuy waxtaan nii. Mhm. Euh, ñoo ngi constaté nii. am na télévision yoo xam ni coupé nañu seen signal. muy seen TV ak Walf. mu nekk lu regrettable. ci démocratie. ci période bu mel nii sénégalais war a dégg. war a xam. nga choisir période boobu. pour def lu mel nii man dam koy ñaaw lu baax a baax. Euh, te nekkul loo xam ne aussi day participer mhm. ci apaisement mhm. parce que euh, day baax mhm. euh, ci biir démocratie ñu am ay espace de respiration démocratique mooy foo xam ni nit ñi nañ ci mën a waxtaan wax ak seen xol seeni frustration keneen ñëw contre contrebalancer loolu su amul ci dëkk ci réew da ngay boucher yoon yëpp te après mën na déboucher benn côté boo xam ne du foofu nga ko xalaatee. Mhm. dafa mel ni rek benn organisme boo xam ni. Mhm. mu am veine boo xam ne dañu ko boucher. Mhm. Euh, soo moytul euh, mën na indi euh, benn crise benn jàngaro. yoo xam ni après li ci topp daal baaxul. baaxul waaw donc di leen encore une fois remercier ak féliciter. merci beaucoup honorable tey nag li ñu bëgg a waxtaan yow bokk na ci. Euh, ci wàllu affaire Ousmane Sonko ndax démb ci la ko juge d'instruction waroon dalal bu huitième cabinet bi waaye ci yoon bi lañu ko dogale moom Ousmane Sonko waa GIGN daal koy jël dëgmal ko loxoy birig euh, loxoy section de recherche yow bi nga yëgee xibaar bi ak situation bi ni nga ko gisee démb ba ci ngoon si sax gis nañ seen taxawaay ak tey nii naka nga jàngatee yëf waa di lu lii am boobu ba léegi euh, wax nañ ko euh, partout wax nañ ko assemblée nationale di ko waxaat partout mhm. euh, ni complot la complot la contre benn citoyen complot la benn contre l'opposition mhm. contre le président Ousmane Sonko mhm. waxu viol defe naa ni amul benn sénégalais boo xam ni gëm na ko Euh, te am nañu occasion gis ay këyit ay euh, recherche yoo xam ne jot nañ ko ci def mm-hmm. mais amul lenn loo xam ne wax dëgg yàlla euh, mën na permettre kenn mm-hmm. ku sérieux nga mën a mettre en avant donc thèse wu viol mm-hmm. wante nag Ousmane Sonko la veille de son arrestation am na benn waxtaan yoo xam ni def na ko ba nangu woon uyu ji Euh, convocation boo xam ni juge d'instruction bi defoon na ko. Mhm. Euh, mais prévenir na askan bi aussi. Mhm. ni soo moytul liñ koy fexeel mooy. Mhm. koleku. Euh, benn flagrant délit. pour mën rek sans l'autorisation de l'Assemblée nationale cueillir ko yóbbu ko. may fàttali ñi may déglu. mais en matière d'immunité parlementaire. suñu yëkkatee Euh, sa immunité. Mhm. dañ ko yëkkati pour benn objet rek maanaam mënuñu la accuser pour viol ñun assemblée nationale ñu lever sa immunité. Mhm. keneen profiter ci. Mhm. pour ne da ma sàccoon. loolu pour ñu topp la ci dañu war a delluwaat assemblée nationale. dafa defaat beneen lever immunité parlementaire. donc day am solo. ñu leeral ci li xew démb. sauf su dee. Euh, flagrant délit la mhm. moo tax gis ngeen li ñu wax mooy euh, trouble à l'ordre publique et cetera. oui mais loolu participation à une auto euh, manifestation non autorisée mais yooyu provocation tam daf ci am mooy bloqué ko bloqué convoi am. Mhm. indi situation boo xam ni ñoo ko tey dina par force fii ngay jaar pour après mën a légitimer loo xam ne moom lañu ñu bëgg a def kon. Euh, li yëpp day renforce thèse u complot li yëpp day renforcer ni parlement bi comme exécutif wante di ci dugal nag yeneen ay forces de l'ordre yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, waruñu woon mën a taxawe taxawaay bi ñoom ñëpp di jouer benn rôle rek simplement xam naa dañu jot ay instructions pour mën a accéder ci Ousmane Sonko tëj ko kaso mais euh, teesu trouble à l'ordre public mmh. mënul prospérer pour une simple raison aussi mooy la veille préfé bi waroon na mën a servir convocation bi wala partager information bi ak avocat Ousmane Sonko mmh. wala ak Ousmane Sonko ci boppam ne ko suba lii mooy itinéraire bi mmh. wante defoo ko euh, sunu chart sunu constitution ak adduna yëpp sax dafa am liberté fondamentale boo xam ne moom mooy euh, liberté d'aller et de venir. Mm-hmm. kooku mënoo ko xañ nit. Mm-hmm. ci article huit bu constitution bi sax am na ci liberté de déplacement. mënoo ko xañ nit. Mm-hmm. donc euh, dañ ko xañ liberté am ba pare def délit provocation provoqué ko créer situation contourner aussi règlement assemblée nationale ci cinquante deux fu muy ne nii poursuivre un député te lever immunité parlementaire sauf mhm. su dee délit la délit donc flagrant délit mhm. donc euh, yooyu yëpp la ñu bëgg contourner et euh, procureur di rattraper bosu juge d'instruction bi juge du siège mhm. pour rek simplement accéder donc à Ousmane Sonko dañ koy ñaawlu bu baax a baax a baax li rafetul ci réew mi rafetul ci démocratie euh, nous sommes en train de perdre tous nos acquis. Et malheureusement, comme je le disais, euh, moment bi ñuy lever immunité bi. nous sommes en train d'installer le Sénégal euh, ci euh, instabilité. Euh, nous sommes en train de menacer, euh, de ronger, de saper les bases solides foo xam ni moom la ñu toglo suñu réew. mu nekk rew boo xam ni adduna yëpp dañ ko fonk. Euh, ñu ciy tiitaroo nous sommes un pays démocratique nous tradition de démocratie mais là euh, mi ngi commencé di tuuru euh, parce que doole bi metti na doole bi metti na d'accord alors li ñu gis démb ci mobilisation ci wàllu ndaw yi surtout ndax loolu nekkul résultat de l'appel de d'Ousmane Sonko parce que ci conférence de presse am veille arrestation bi dafa appeler à la mobilisation ndax tey kon duñu xalaat ni ëllëg mun nañ ko toppee ci ci wàllum insurrection yooyu yëpp suñ koy def c'est encore pour être ridicule nga baal ma ci wax ci c'est nañu arrêté foo yi ak nañu arrêté euh, foo bu dangereux bi daal euh, le pays a d'autres enjeux nit ci dañu xiif nit ci dañu sonn nit ci dañu soxla tali nit ñi ragal nañu mbas mi nit ñi sont préoccupés pour vaccin yi euh, ñi am diplôme liggéeyuñu ñii war nañu dem jàngi ainsi de suite loolu mooy tey jii suñu enjeu mais pas mobiliser un pays comme celui-là pour encore lii doxul viol bi doxul ñu dem ci flagrant délit boobu doxul ñu toppaat ko ci insurrection et cetera euh, waxu kasaw kasaw la wax dëgg yàlla euh, yéen a ngi fi vaar yaa ngi fi euh, on encore lii président Macky Sall doon wax avant nous devons marcher Euh, sur le palais et cetera et donc mm. franchement nañu bàyyi wax ci mm-hmm. euh, le droit à la résistance c'est un droit que nous confère notre constitution euh, mën a résister jàpp ni li ñu may def mm-hmm. du yoon ma taxaw wax ko mm-hmm. résister par la parole résister physiquement Euh, résister par tout moyen comme je suis en train de faire d'ailleurs et comme d'autres sont en train de faire je pense que kooku droit wu askan bi la te président Macky Sall wax dëgg yàlla. Mhm. loolu dafa ko war a dooleel euh, surtout quand il s'agit de Ousmane Sonko quand même troisième à l'élection présidentielle tey jii am na keneen koo xam ne mi ngi woon ci diggante bi waaf na donc on dira que c'est le premier de l'opposition yaa xayti kooku euh, wax ji mu wax nii dafa méngoo ak jëmmam ak maqaamam ak darajaam darajaam mhm. ak méngoo aussi. Euh, euh, daraja euh, bêtise boo xam ne def nañ ko wax dëgg yàlla tu ne peux que te défendre donc aujourd'hui franchement waxu kasaw kasaw la que di indiwaat yeneen nañu bàyyi kii mu dellu këram jàmm ñëwaat Sénégal viol amul maintenant nag yoon la ñu nekk Sénégal la ñu nekk mmh. nee na dina dem tontu mmh. juge on peut encore faire confiance sunu justice nañu refuser ñu instrumentaliser leen que le droit soit dit et jàmm ñëwaat. d'accord en tout cas c'est le l'appel que je lance. parce que lii baaxul mu musuma dund man Sénégal bu mel nii honnêtement. ok euh, am na nag ñu mooy mag. Mhm. de 2012 à maintenant aussi dund nañu leneen situation ay moments yu grave mhm. mais ay moments yu grave la yoo xam ne accident sax mën na ci am mais fekk euh, li ñu doon xeex. jar na ko te euh, jar na nga def ci sa énergie mais lii actuellement on est en train de mobiliser notre énergie ci loo xam ne wax dëgg yàlla euh, doy na waar daal. Mhm. alors que y a beaucoup euh, d'autres préoccupations yu nekk une fille de vingt ans. Mhm. instrumentalisée utilisée usée boo xam ne ñàkk na yaayam yërmande la ñu bëtu yërmande la ñu war a teg ci kaw kooku kenn bu ko saaga. Mhm. mais war nañu mere. képp koo xam ne dugg nga ci complot utiliser ku mel noonu pour mu def jëf ju mel nii te wóor na ma ne euh, actuellement mi ngi souffrir dans sa chair te wóor na ma ni metti na lool mu mën a nekk fi mu nekk actuellement nekkul ak ay waajuram nekkul ak ay mbokkam amul benn xale bu vingt ans une fille de vingt ans bu mën a dëkk lu mel nii et tu n'es pas avec tes parents tes copines tes amis donc complètement bunkerisé isolé sëñ bi loolu. c'est une torture extraordinaire. on parle de Guy Marius Sagna on parle de Sonko mais il faut parler de Adji mhm. parce que tamit kenn gisu ko. ah non mais dafa metti je sais pas la souffrance. Mhm. psychologique la violence boo xam ne actuellement qui est en train d'être exercée sur cette fille-là ah c'est terrible moi je ne serais pas capable Ousmane Sonko d'ailleurs nous nous sommes tous là et cetera le peuple est là on sait ce qui se passe mhm. mais cette fille il faut plus de lumière sur ce qui est en train de se passer avec elle, dans quelles conditions elle est en train de vivre. C'est une atrocité, et je le dis, ci mois de mars. le, mois, mois des, des femmes. femmes. Mhm. Donc je le dis, il faut que ñun ñëpp parent yi jigéen ñi ñëpp ñoo xam ne dañuy jur doom ñu mën a mobiliser wu protéger aussi cette fille là mais la protection c'est pas wéy na Ousmane dem uyu et cetera non c'est à un autre niveau c'est à un autre niveau fi ñu koy xamee mooy kii réellement s'il y avait une liberté les actions su doon moom moo def jëf bii tey ji mbokkam mi ñooy nekk ci wetam mais euh, malheureusement c'est pas le cas donc euh, qu'on revienne à un état de droit que le droit soit dit que la justice fasse son travail mais encore une fois Ousmane Sonko dañ ko bàyyi mu ñibi def liggéeyam ses droits ont été complètement bafoués violés il euh, n'y euh, a pas de respect pour l'opposition, respect pour la classe politique, respect tout simplement pour les Sénégalais. Mhm. Et, je déplore, man, nga baal ma dama am waajur joo xam ne dafa doon liggéey ci lii. Mhm. ba wàcc liggéey. Mhm. dégg nga. ma nekkoon ci gouvernement. nekkoon ak président abla Wade. nekkoon ak waajur joo xam ne mi ngi woon ak ay Abdou Diouf. keroog dem seeti Abdou Diouf. yaa fan yi rek. adduna. femme yoo xam ni euh, da ngay xam kan mooy sa xarit ak kan moo dul sa xarit mhm. te tey jii président Macky Sall mhm. dafa am ñu ko jege ñu ko buggul il sont en train de lui tendre un piège mooy ñàkk am courage nga toog ak président de la république ne ko président su doon suma xalaat nii ngay defee mhm. mu ne la nii lay defee nga ne ko président déedéet bi baaxul bii du ma ci ànd ak yow est-ce que loolu amati na. waaw moom lay wax moo tax ma koy wax fii ñu may dégg. Mhm. xam naa ne sax am na ci seen biir. mais ma bëgg a encourager ñooñu. ñu sol seen dàll wala bind seen lettre. wala mën a taxaw ne maag yow a ànd du la bàyyi wante lii naa la wax li ma lay wax. loolu dafa war a am. Mhm. mais actuellement ñu bëri ñoom ñoo courber l'échine ñu bëri ñoom ñoo waaf kenn sañatul wax. Mhm. ku wax ñu teg la noon ku wax ñu war la descendre. loolu je dis encore une fois on n'est plus en sécurité. d'accord ci euh, moo xam ne lu la neex. Hmm. fu la neex dem fu la neex wax. Hmm. te respect sénégalais yi dañu xam dëgg dañu xam justice ku bàyyi yoon dañ ko xam. Hmm. ku nekk ci yoon tamit dañ ko xam. enjeu politique bu affaire bi jël en tant que boo xamante ni yàgg nga ci champ politique bi noo ko noo ko jàngatee parce que mel na ni dépassé nañu bu yàgg. waaw euh, enjeu politique bi. ce n'est plus une question de parti maintenant. exactement parce que ben affaire privée la woon finalement. et, et, et l'erreur bi euh, majorité bi def mooy euh, à l'époque c'était ñoom ak Sonko. man ànduma ak Sonko. Mhm. il y a aujourd'hui beaucoup euh, vous l'avez vu du bëri ànduñu ak Sonko. Mhm. Euh, mais aujourd'hui su ay calcul moo tax. ñu bëggoon def lii Sonko mais ils ont eu le contraire mooy li ñu doon espérer. contraire bi la ñu am mooy tey jii y a une mobilisation derrière Sonko. et ce n'est plus simplement les hmm. les politiques. qui sont derrière il y la société civile. mais il y a la société civile. Hmm. et les mouvements citoyens oui. c'est ce que Sonko a réussi d'avoir et le peuple et l'opposition hmm. et les mouvements citoyens. et même au-delà. Euh, du côté de la majorité. je je on se donne rendez-vous. y a pas mal. de gens qui son du côté de la majorité qui certainement seront aussi encore parce que question justice la ku nekk da ngay julli ki dem église ki et cetera soo sa borom ak sa conscience am na yoo xam ni doo wax doo kii parce que peut-être tu na pas les moyens de le dire tu as peur tu as mais en âme et conscience xam nga li nga nar a def ok sànq ñu ngi lay dégg ngay wax dafa mel ni daa am ci ay preuves yoo xam te ni taxaw ngeen si pour mën a euh, dëggal ni effectivement viol amul ndax yaa ngi tudd ay kayit ak ay preuve membre de la commission am na mhm. ay euh, papier yoo xam ne xool nañ ko dara nekku fa dara dara dara dara kon ñii wax naan gis nañ euh, non dara nekku fa mhm. moo tax en tout cas ñun ñu jàppoon ni su dee ci kaw base boobu la ñu doon demandé ñu lever immunité parlementaire doy ñu woon làcc nañu ñu déglu aji Sarr ñu bañ wax nañ leen conformément aux dispositions de notre règlement intérieur Euh, ñu mën ñu permettre ñu euh, adjoindre nu le services donc d'un expert ñu bañ euh, bëgguñu déglu keneen gis keneen sauf base u papier yooyu mais sur cette base la en tout cas député yi nanguñu woon def liggéey bi en tout cas ceux de l'opposition mm-hmm. kon dafa amul dara moo tax ñu ne fii amul dara mm-hmm. amul dara moo tax ñu ne fii amul dara. Mhm. mais lii tee xel encore une fois mooy précipitation yi. Mhm. ensuite bi ñu lever immunité parlementaire wu Ousmane Sonko constitution daf mais may six jours franc. Mhm. vendredi samedi dimanche lundi mardi. Euh, euh, euh, no doo ci boole vendredi donc. kañ laa wax. samedi vendredi la ñu def donc samedi. samedi dimanche lundi mardi mercredi. six jours yooyu danga nga war a may le parlement mhm. ak ñëpp mhm. constitution bi mhm. moo ñu ko may pour mun ci diggante bi xool ndax mën nañu def recours te loolu respecté wuñ ko respecté wuñu ko mercredi ñoom ñu convoqué ko loolu tamit énième dafa mel ni yëf yi dañ ko taxañ précipité ko bëgg gaawantu yàkkamti donc yooyu ñu koy ñaawlu euh, te euh, fas yéene naa Euh, personnellement demande la suspension des poursuites parce que ko su suñu règlement intérieur may nañu ko mhm. def euh, benn résolution pour ñu mën a euh, mhm. stopper mhm. poursuites yi contre Ousmane loolu mooy nekk seen prochaine étape yéen ñu koy jàppale waaw parce que en France de 1874 à nos jours seize fois députés yi def nañu demande boobu de stopper les poursuites sur les seize quinze fois topp nañ leen loolu mooy parlement loolu mooy dignité mhm. mooy doo toppee nii suma député n'importe comment dama bëgg a suspendre le temps mu terminer session bi mhm. et cetera et mais parlement bi wane euh, respectabilité am honorabilité am ok mais euh, nga suivre nii nga nangu ñu arrêté un député bu doon dem uyu nga nangu ñu arrêté ko déféré ko jaaruñu ci yow lever immunité parlementaire et cetera mhm. mais nga nekk majorité comme opposition rafetul. Mhm. est-ce que yéen ñuy jàppale Ousmane Sonko am ngeen yaakaar ci justice bi. parce que moom si wax ci kàddoom. jàppale gis nga moom mhm. bëgg mu leer. au début laa wooyalee jàppale kenn jàppalewul Ousmane Sonko. Mhm. kon li ngeen nekk di def lan la. mooy jàppale réew mi ak jàppale justice. parce que xam nga euh, oui ñoo ngi jàppale Ousmane Sonko mais soo ko waxee noonu. tënkee noonu dañuy jàpp ni affaire politique la. mais tey jii on est en train de soutenir la justice. et Ousmane Sonko tey jii. moom la ñu violé ay euh, droit am donc on est en train juste de dire le droit alors qu'on n'est pas juge et on pense que war nañ ko mën a wax parce que le peuple est souverain justice bi tamit on espère que suñu fa eggee ba le droit sera dit okay. mais si le droit n'est pas dit kenn duñu mën a noppi loo wax loo xam ne ñun yaakaar nañ ni moom mooy suñu intime conviction ni lii nii la war a demee alors honorable yegsi nañu daanaka ci wax ci njeexantalu waxtaan wi may fàttali ñu ngi doon dalal kii di Moustapha Guirassy di député à l'Assemblée nationale il est par ailleurs PDG de IAM euh, honorable liñ la bëggoon wax liñ la bëggoon laaj tey jamono bi nga xamante ni réew mi yëngu na ñu bëggoon xam bu fekkee ni am na looy xelal njiitu président Macky Sall tey boo waroon wax ak moom lan nga koy wax yan kàddu nga koy sànni. ki may doole bi moom muy sunu boroom tuddee boppam allah nekk rahman nekk al aziz nekk le puissant nekk malik moom de say yuy wax ak ñun ci alquran day wax al aziz al hakim mooy le puissant et le sage day associé ñaari tur al azizu rahim hmm. le puissant wante ki ànd ak yërmande latiful xabir hmm. il est bien informé hmm. mais il est extrêmement doux li ma bëgg wax mooy pour yore mbir sàkkatumaak sunu borom moom mooy le puissant wante muy associé plusieurs de ses essences ak de ses attributs sàkkatumaak doomu aadama may ñaan président de la république il est aujourd'hui le puissant moom mooy aujourd'hui le roi moom mooy aujourd'hui le chef des armées mais damay ñaan mu boole ci xikma boole ci justice boole ci équité ak éthique ak yërmande ak di baale ak di mettre boppam au-dessus de la mêlée moom laa koy ñaan moom mooy suma dernier wax honorable député Moustapha Guirassy ñu ngi lay jaajëfal mbokk yi mu nekkoon seen émission ganu Equivox fii ci Equivox TV ñuy jaajafal suñu équipe technique bi ak mbooleemu rédaction bu Equivox TV di leen jox daje fii ak fan yu néew jërë ngeen jëf